anta rabbi wa kunta li bi widaadi rakasuni bil jannati bi widaadi anta rabbi wa kunta li bi widaadi rakasuni bil jannati siyaare bu baax a baax nga sut maam yi aw fan ba sa barke bi son émissaire lay nuyu bu baax a baax a baax di siyaare nee xam na ne daal liggéeyam bi nangu na ko nekk daal yëfi da koo tiw waaye dara laal ko ci ndam li lépp da koo féetale ndam li jël coono bi toggoo ko moom leer ne moom nangu na ko liggéeyam bi xam na ko bu baax a baax ñaanu gaaw daal dafa mel ne ba mu fi jógee rek la nangu woon nee lay ñaanal bu baax a baax sa fan wi du aw doj nee ni suuf ak asamaan tolloo yàlla na sa fan wi raw la woon tam ànd ko sëriñam bu baax bi nga xam ne moo ko dooleel ndax lépp sëñ Fall la te sëñ Fall daal nee na lu mu def ci yow rek xeeb na ko def ci yow rek xeeb na ko sant bu baax a baax di la gërëm te di dool di la ñaanalaat bu baax a ndax yow koy féetale ndam li jël coono ñu ngi lay na lii mu indi lu mu xeeb la nee na nga laat ko mu gën a yokkaat dooleem bu baax a baax te bu déwénee mu jugee ci réew yi sori ñëw di togg si reer yi nee na nga dogal ko ko ndax yow loo ko dogal da koy am waaw ndax nee na moom yaay am maam Cheikh Antaam na fekk fi maam Cheikh Anta waaye moom yow la def maam Cheikh Anta waaw. sëñ bi Balla Aïssa Boury mu ngi lay ziyaare bu wér a wér di la nuyu di la ziyaare. di la ñaanal yàlla yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi loolu te wér Bàll nga sut way jur yi fan mbaaxu yàlla ak kàntanam ci daraja yi sëñ Touba ñun dey takaar la ñu jógee te réccuwuñ ci dara gannaaw yàlla ak yonanta ba daal ami sëy mii moo ma déplacé may xaritu yaayam muy sama doom ñu yàgg lool góoram gu baax gi galas si la nangul ko ko nag muy liggéeyal galas rek te yàlla tax Ngalasit nangul ko ko mu déplacé ma dakaar ba fii te ba ma fi première ba ma fi ñëwee ñëw sukk ci say oom nga ñaanal ma ma ci dara maa ngi ñaan Mbàkke Bàlla mu dolleeku yi yokku naa ba yëg ko macha allah la ñaanal yàlla nag yàlla na la yàlla bàyyi ci suñu kanam di ñaanal Fallou Galas mii nag lii mu jàppalee Ami Sey mi ba mu mën lii yàlla na ko suñu borom bi yokk ca kaw yàlla na dool na soroolu Tuubaa bi ci barke yonent bu tedd bi ñu ngi koy ñaanal bu wér a wér wërsëgam yokk mu yokk ba yëkka ci sa darajay maam jërëjëf Balla Issa Boury jërëjëf Mbacke ñu ngi lay sant bu wér di la ñaanal wér. ndax lii mu wax nii rek ak nii mu jëfe moo waral màggal bu Daaru am waaw ba maam Cheikh Anta jëlee léppam ak gànjar ga waay juróom amoon wurus wa juróom amoon soxna Anta Ndiaye. jël lépp jébbal ko Serigne Touba te booba doonu ñu ay mag sax ñoom ñaar ñu woon ay mag booba Serigne Touba nee na Cheikh bi muy jébbalu bi may jébbal boppam xaw ma xaw ma lu tax muy jébbalu ci man moom mi jébbalu ci man it xamut lu tax mu lu tax muy jébbalu ci man waaye yàlla nu boole rek. waaye sëñ Fallou tam bis bii nga xam ne ci la jébbale ab taawam jébbale ay soxnaam jébbale këram ci la kër gi door a tàmbale fees nag foofu mu defee ne kër ga jébbale lépp fa la kër gi door a tàmbale feese nag da nga xam ne sëriñ bi la gën fopp waaw kër ga dafa mel ni day door a tàmbali te day fees dell waaw lu fa nekkoon rek suñ suñ gaawaan dana ko ful dana kon nag soxna Amy Seye eh, sa bokk yi nga àndal ñii nga jële leen Ndakaaru ñii nga jële leen feneen ñëw daanaka man na maa wax ne fukki fan yëpp wala lu ëpp na ko nga nekk ko ci di di ma sonnal ngir sëriñ tubaa sëriñ Touba am na pay man mi nga doon sonnal itam gis naa coono bi sëñ Fallu mi taxoon ngay sonnit defe naa ne wan na la loo xam ne rëy na lool ndax ndax ndax yow mi doon sonn bu la boolee ab taawum boole la ak ab aawam jébbale leen kooka moom defe naa ne liñ doon sonn lépp dafa mel ni moom da koo lem maam Cheikh nag loolee mu defoon teraanga ju réy jëm defaloon Serigne Touba ba jébbal ko boppam doyloo ko ñu ànd ñoom ñaar mag ñi sax dañ daan wax naan ñoom day xawma dañoo wér xawma waaye bàyyi leen rek kenn xamut fuñ jëm ndeke fa ndekete fañ jëm mooy tabax Touba tabax Daaru Salaam suñ Touba dëkkal maam Cheikh Anta Daaru Salaam muy këru këru àjjana goo xam ne gi ku fi dëkk da nga am teraangay biir ak teraangay biti ba ba ngay dem àjjana loolu moo mooy ndof ga mooy wéradi gañ doon wax ndegete sëriñ Tuubaa day taxawal yoonu murit réew moo dem ci àdduna tey jii ñu ngi fay màggal Daaru Salaam ngi fay def màggalu Daaru di feete victoire bi sëriñ Tuubaa am ci kaw colonialiste yi ba ñibbi si Daaru Salaam ñuy feete bis bi ñu ngi koy feet ci réew yëpp Soxna Ami Sëy nag lii mu def dafa dafa dafa dafa dafa dafa jël daal dafa jël dafa jéggib daayo daal waaw ndaxte yi bernde bi ma bi ma bi ma duggee ba gis ko sama xel ci Sëñ Muntaxaa rek la nekk <laughs> ci Sëñ Muntaxaa rek la nekk ndaa ndax lii moom keneen ko ma ko jox ko dul Sëñ Sëñ Muntaxaa rek daanaka moo ëpp la <laughs> kon sama xol sedd na ci bu baax a baax a baax a baax te itam yi maa ngi ñaan moom mi nga xam ne moo ko doon saboon ak jëwriñam ji di Sëñ Fallou Galass Sylla ak seen njaboot gi maa ngi ñaan li si li Sëriñ Tuubaa di séddale ci bis bi kenn bañ leen ci ëppale yàlla bu leen ci kenn le maa ngi maa ngi ñaan itam waxuma ba la ñuy ci bis bii de déwén waaye weer wu ne ci suñ bu ñu àggee ca weer wa yéen ñëpp na ngeen yokk ba yëg yokk ngeen waaw yéen ñëpp na ngeen yokk ba yëg yokk ngeen bu pexem bu seytaane man ci yéen dara waaw Anjana